يزورك مني آه mbokk yi asalaamaaleykum wa xel xelkom la àndoon ak yéen ci ay barab yu bëri ci liggéey boom solo ba nga xam ne nii mooy ngóob mi Serigne Cheikh moom sëriñ Saliou santaane woon mbokk yi fii nag yaakaar naa ne beneen étape la ci liggéey bi muy Touba Darou Salaam sëñ Fallou ñu ngi fii ci fajar gi mën nañ ko wax ndax jant baa ngi nii di doog a jóg ci daal bi mu xumb lool ñu fekk nit ñi ñuy yëngu fii ñu nekk sëñ fallu fan la ak fan lañ jëm nii ak mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel boobu ba léegi. Eh, jërëjëf eh, sëñ Cheikh eh, ñoo ngi jaare bokki jullit yëpp di jaare bokki taalibe yëpp di am mbégte fii ci tool yi nga xam ne tool yi lislaam la di tool yi barkeel di Touba Darou Salaam ñu gëroon ko min bu yàgg ci Maodo Mouride di ko Serigne Cheikh mu Serigne Saliou sancee tuddee ko Touba Darou Salaam muy tool yoo xam ne ci ndigalul Serigne Abdoul Ahad ak loolu Serigne Saliou la fi ñëwee woon. Euh, ci jamono yàgg yoo xamante ne bii booba àll bi gën naa lëndëm waaye itam booba tumbaraan ki gën na fee yomb waaye nag naka jekk xam nañ ne sëriñ bi da daan seet fu wéet foo xam ne des na fa mën a jaamu yàlla rawale fa njaboot mu dem fa looloo ko waraloon mu toxoo Mbàkke Kajoor looloo toxoon ñu jóge Mbàkke Bari moo taxoon ñu jóge Mbàkke Jolof moo tax ñu ñëw Mbàkke Bawol moo tax mu sañc Daaru Salaam moo tax mu dem Touba ba dem ci géej gi yu mel noonu nag mu jeexital yooyu la euh, njabootum njabootam ku tedd gi di xañ ci looloo taxoon sëriñ Abdou Lahad jox ndigal sëriñ Cheikh mu ñëw sanc àll bi nga xamante ni digganteem ak Touba war naa toll ci euh, téeméeri kilomètres yu tegal juróom fukk wala euh, nangam mu nekk fi nag di fi liggéey ak jaamu yàlla mooy jàngale ak yare loolu nag boo dikkee ci dëkk bi ba mu fii njëkk ñëw am fi ndox jafe woon na lool yoo xamante daana root ci ay kilomètres yoo xamante ne bii sax lu andi ndox mi boo ko amoon ca teen ba ba noppi lu la ko andil ci kër gi dina andi jafe-jafe léegi nii foo xool ci àll bi gis forage bu njëkk booba almet rek moo la fi mën a may luy leer tey jii boo xoolee gis courant bi loolu yaakaar naa ne ak sant yàlla la bu baax a baax booba itam euh, néeg ay ndon ngay gàjj wala ay nangam ak nangam léegi kon day mel ne boo dikkee fekk fi ay tabax ak leneen yi ca aju day mel ne kon développement mi ngi fi am bu baax a baax loolu nag liggéey bi mu fi woote mu di am ngóob nga xam ne at mu jot dana ko sant bokki Saalum Saalum yi ak yenn seex yi loolu lañ fi ñëw tey jii fas ne ànd ak bokk yi dem ci biir tool ya ñu ngi ba tey ci Touba Darou Salaam Modou Mbodj eh, gis ngeen bokki taalibe yi nga xam ne ñu ngi ci liggéey bi amul nag li ci gën a yéeme mooy amul âge gis nañ fi ay xale yu ndaw gis nañ fi ay xale yu góor gis nañ fi ay soxna gis nañ fi ay mag yoo xam ne am nañ lu ëpp juróom ñaar fukki at ñuy wax ca gor ba ba léegi ñu ngi ci liggéey bi ñu tayuñ kon liggéey Sëriñ Tuubaa moom amul retraité ñu ngi kenn ci jëw ñu liggéey bi Sëriñ Moustapha Jaxate mu ànd ak njabootam ànd ak mbooloo moo xam ne nii bàyyeekoo nañ fu nekk dégg ngeen bu yaatu bi nga xam ne nii na ko ànd ak rakam maam am sa Jaxate euh, Sëriñ Moustapha ñu fekk leen ci ci waaru rek ñu bëggoon a xam liggéey bi euh, fu mu toll ak euh, nan la demee fii ñu toll tembe ci waxtu wi tey gannaaw bi ngeen fi defee ay ay fan jërëjëf mbokk teew yëpp ñu ngi leen nuyu baax sëñ Fallou di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñëw nañ ci tool yi di nuyu mboolem kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite ci liggéey bi suñ Moustapha Diakhaté suñu kilifa di nuyu itam Serigne Cheikh moom Serigne Saliou ñaan suñu borom mu yàggal ko fi loolu tam ànd ak wér moom mi nga xam ne moom suñ suñu tubaab jaarale liggéey bi ci loxoom eh, xam naa nag li nga wax day ne xam naa ne sax yaa ma yaa ngi may laaj laaj ba yaa ma gën a xam waaye day wanewaat rek mbirum Sëñ Tuubaa ci mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo jóge ci ay barab yu faccanti ko fii mu sori lool te ñëw gi ñu fi ñëw amul kenn ku ci am positif bàyyi fi liggéey bi te liggéey bi des fi dañuy dégg sax ñoo xam dañ naan démb rek na ñëw suñu soi naan bi jox ñu ndigal ñu bojj ko def ko ci saako doog a dem waaw wax fii ci mbooloo mi démb te ñooñu sax ay mbooloo lañ ñu ñëw ci ñëw di ko wax loolu daa am lu Sëñ Tuubaa am loo xam ne Sëñ Tuubaa képp dong ko am keneen amu waaw keneen ko ko mën a amit kooka da ko kooka moom daa moom nit ñi moo tax mooy mooy suñu borom waaye ginnaaw suñu borom keneen ku sukk ko am ku du Sëñ Tuubaa amul Sëñ mu am loola mooy yaa ma gënal sama ndey yaa ma gënal sama baay loolu bari na ñu koy wax te dëgg waaye Sëñ Tuubaa képp ku ko wax dëgg la ci waaw Sëñ Tuubaa ñu gën suñu ndey moo ñu gënal suñu baay moo ñu gën a lépp ndax ba suñ bay jaxati sax di ko way naan ko yaa ñu gënal suñu ndey yaa ñu gënal sama baay suñu baay da la ko naa yaa gën ci nun suñu ndey daan na ko mbay gën a gënal bokkul daan na ko te mbay li ne ci man bu ne woon ci seen ndey ak seen baay du ma leen gis looloo waral suñ tubaa gënuñu suñu ndey ak suñu baay fii ma wexee yow nii mboolem ñu ñëw ci tool yi ñëpp ñëpp ñëpp fii ma waxee yow nii tool yi leen daqal seen kër yëguñu sax ak tumuraange am na fi te boo ko xoolee ca xel koom yi Sëriñ Saliou ja xool ko ci xel koom yi Sëriñ Sëriñ Sëriñ Seex ji xam ne Sëriñ Tuubaa amul tànk ginnaaw liggéey bi daa gën a yaatu gën a bari waaye mbooloom mbo Sëriñ Tuubaa moom waar wu bi rek suñu borom ko mbooloom mu toll mu ëpp waar woowa ba nga xam dañ koy daj kàpp loolee mu waxoon nag ci ne képp ku ma liggéeyal da am nangam yàlla bu bu kenn mucc ca loolee ci mboolem ñu ñëw ci tool yi waq di xawaa ay jël lazina daamu fi xidmati la lii nag keneen ku ko bëgg wala nga wala wala nga jàpp ne mu ngi mën ne wala nga am noo ko bëggee da ngay jëm a seet ni Sëriñ Tuubaa defoon nga def te Sëriñ Tuubaa ne woon na li li yàlla moom mi ngi fi ba léegi la waaw signé contrat yi mi ngi fi waaye képp ku bëgg li Sëriñ Tuubaa bëgg boo defee li Sëriñ Tuubaa bëgg defit ñu ñu teg la fi ñu teg Sëriñ Tuubaa waaye li sëñ bi wax léegi ci gone yi ak tout tànk yi ndaw yi ba ci gone yu tuuti yi nga xam ne sax dañuy doog a fer am na ci ñoo xam ne da nga leen di neexal ngir bàyyi leen ci kër gi lu ko mooy dana am problème jafe-jafe ngay am ndax bëgg a ñëw ci tool yi loolu nag liñ liñ ci mën a jàngate rek mooy Sëñ Tuubaa ak ruu lay defar danaan wax naan aw ñam lu mu neex neex bañ koo soxla moo gën waaw amuñ aw ñam lu mu neex neex bañ koo soxlaa ko gën moo tax Sëñ Abdul Ahad danaan wax naan ngërëmul Sëñ Tuubaa daa gën ëtt naag li ci biiram nit ñëw na ci moom ne ko wax ko ay mu fayal ko ko ba noppi mu ne ko yàlla nga fi yàgg suñu Sëñ Abdul Ahad xoolu ko mu ne ko yàlla nga dund téeméeri at si yëpp laat xool waaye bi mu ko ne yàlla nga am ngërëmu suñu Tuubaa daa daa làmm poos bi ci biir la la ca nekkoon lépp mu génn ko jox làmm poos bi génn daane mor maamu ñang àndal ak Baara Ndiaye ngeen dugg ci nekk boobu loolu fi lu fi nekk lu ñuy joxe rek joxal ma ko kii di ma ñaan la ngërëmu suñu Tuubaa man ab laat yàgg fi te ëmb ngërëmu suñu Tuubaa dara adduna jëralu ma ko loolu nag mu ñu fi indi ñun ñi tam te ñooñee daan dem fekki suñu Tuubaa xumaak ak ñi daan fekki suñu Tuubaa ci yeneen i barab yoo xam ne am luñ bëggoon a tax ñu ko fay fekk si loolee itam lañuy lañuy lañuy lañuy la ñuy ñàkk-ñàkk am tawféex yi dajeeg loolee am nañ tawféex yi bokk ci liggéey bi Sëñ Tuubaa te ku ne xam na ne Sëñ Seex moom Sëñ Saaliw moom ba fi sëñ ba fi sëñ nekk la def la la daan def la muy def ñëpp ci dëgg bët boo rombee ab tool buñ la nee tool bii kenn moom na ko kudu jamono yooyee da nga naan dee te booba sëñ Seex a ko moom kon nag buñ demee ba jamono mu boole la sëñ Saaliw daan béyoo dolli ci yëfi boppamaat kon war nañoo xam ne dimbali jaam ñee ko tax ku ne xam ne tool yi lii fi nekk ci dugub ak li fi nekk ci ab ci liñ fi liggéeyee lan fiy ñàkk ci ngi ñu mën koo so lim ciy ñàkk ci alal ngir ñu mën ko ñoŋal moo ëpp fuuf liñ fiy bay loolu nag dafa am fa aw ñaq nekk aw ñaq mënoo ko xool ci doomu aadama bi gis ko amul fenn foo ko mën a xool gis ko lu dul yëllaa koy génne yëlla joojee di génne noonu la mooy mën a yéegal nit ki ci ruug ca pays suñu borom ya ba mën a am tawféex tawféexul haadi jooju suñ tubaab daañu ko ñaanal ci liggéeyal ko rek lañ ko mën a amee dafa am lu mu wax ne ku ne mën nga ko am waaye am na loo xam nag ci liggéeyam nag képp lañ ko ma a amee liggéey boobu nag daa boole mboolem koo xam ne ñaqal na Sëñ Tuubaa ndax dafa wax ne Tuubaa ak texe am na ki amuk texe nag du ceegee ne kenn képp la ku dul li abdin muridin abdin murid nag daa am ay qualité yu mu teg ne moom lañ ko mën a amee saadixin lahumoo bi xidmatin aw bi hubbin aw hadiyaati bi xidmatin ñetti caabi la yoo xam ne ci benn bunt la ubbi ñetti ceeb bi ci benn bunt nag yaakaar naa ubbi ko wut la suñ lay dal mooy dal kooka mooy ku ñàkk tawfiix wa ardaytuhu bi sa لله Mor la laa jógee Mbacke waaw Mbacke Gawane waaw waaw damaa ñëwoon barkeelu ci tool yi ci ci ngóob mi quoi damaa ñëwoon ci ci ngóob mi non Gawane laa dëkkee Gawane laa dëkkee waaw ñu ngi sant bu baax nekk ci rek ñu ngi ci kaw waaw fa fa yéene si waaw te nii laa def waaw ak sama lakas ak saako. <laughs> sant yàlla wér man Louga waaw jëwriñ Moussa Cissé waaw waaw sëñ rek moom rek moo mën a am lii ndax ñun xale yi ñun ndaw ñi dafa def si ñun loo xam ni kenn mënu koo wax quoi ñun lu am rek sëñ Saliou moo tax lu mu woote rek ñun ñu ngi ci bam saf saf waaw sant sëñ Saliou rek. maa ngi tudd Gaye Seck jugee sa Jolof. waaw Jolof laa jógee de waaw Linguère waaw Linguère lañ jógee waaw bokk ci daara ma loo ci fay waaw ngir liggéey sëñ Tuubaa rek moo fi indi waaw wuy wuy ci rek wuy ci wuy ci wuy ci ndigal rek noonu noonu la lay sant yàlla baax tawfeex rek ak sa waaw sant sëñ bi rek mu yàgg fi Ibrahima man maa ngi bàyyi ko Touba Mbacke waaye waaye Koungheul laa nekk di jaay café borom café gi Baye Fall borom café gi waaw <laughs> yàgg fi rek téwéer moom sëñ bi ñu koy ziar bu baax a baax a baax a baax fas yéene jariñu fas yéene jariñu ci barkeb sëñ Tuubaa Faat Ndaw Ndaw ma bàyyi ko fii Daaru Xudoos waaw waaw damaa ñëw si liggéey bi waaw sant sëñ Saalu bu baax di sant bu baax ndax moo ñu yar maa ngi dëkk Madinatul Munawwara gi dëkk baa kër baa Seex Ndaw foofu laa dëkk waaw forage forage bii sax si gannaaw nii moo ko jox waa suñu seex moo ko def sama baa jënd benn ndox waaw dañu amoon jafe-jafe ndox waaw taroon na fi lool waaw. waaw suñu seex defal nañu baa dafa am fasante moom kóllëre. Mor Samb mu ngi jéeri mu Samb mu ngi jéeri waaw ngu jéeri la bàyyi ko Koungheul rek waaw département Koungheul la fii ah bëgg Sëriñ Tuubaa gëm gëm ko yaakaar ko waaw xam ne fii moom njëriñ rek dañ fay jëlee Sëriñ Tuubaa amul tànk gannaaw tànk kanam rek la am. ndax ci jamono Sëñ Fallu bi ñuy dëkk dëkki sox sox fa la yëfe yëfe tàmbalee dañoo dëkk ba wàcc sox sox nii ba pare mu ne lii mooy lan ñu ne ko mooy njonke mooy njonkan mu ne ñokkal ca ci diwen so la matériel yi wàcc lépp wàcc kenn kenn gon gas Sëñ Tuuba rekk la Sëñ Tuuba rekk la amul retraite amul retraite man mii wax ak yow nii maa ci juróom-ñaar fukki at kii romb ko maa ngi ci juróom-ñaar tey laa gën a a tuuba ren la sama juróom-ñaar fukki at sëkk sëkk te kii nii moo mag bu jëlmaat itam ñun dañoo liggéey dañoo liggéey ba tëdd mënuñoo jox rek boobu ji de gi nekk fa. Daara Lo Daaru Kafaat Koungheul waaw Koungheul <laughs> waaw waaw di liggéeyal sëñ Touba di ñaan yàgg koo liggéeyal yàlla barkeel seen ab liggéey yéen ñëpp barke sëñ Touba lépp luñ ci sàkku ak luñ ci ñaan rek sëñ Touba ñu ci lor suñ jort waaw ñu yàgg nañ fee ñëw kay ci ruuj ma ba tey kay ñu ngi ñëw ci ruuj ma ba tey. <laughs> wute na kay bu baax a baax a baax lépp jafe woon kay tey lépp léegi nag lépp yomb te xéewal yëpp jege si nañ sëriñ fi ñëw dëkk ak ñun loolu xéewal la xam nga xam ne sëñ Mourtala bañ koy dëkkeel euh, dee dëkk bi njote mënuñu mënuñu seen maam yi ñu daan du mbuusi cere ak mbuusi ndox di dox di dem xoomaa dafa fekk yéen nag léegi ñun ñoo leen fekk sëñ Mourtalla Mbacke booba ndëqim am ndëqim la woon waaw mu ñu wax ñu lool mu ne war ngeen a sant yàlla bu baax a baax. sëñ bi na nga tudd ak foo bàyyi ko nii. Alioune Thiam Ribo Escale. foo bàyyi ko nii Ribo Escale. Ribo ñëw ci liggéey bi. waaw xanaa yàgg ngaa ñëw ci liggéeyal Serigne Touba di de. wallaahi. Hmm? wallaahi. doo tay yow ci kan njaboot nga bokk. mukk ci àdduna. yow kan mooy si Serigne. man <coughs> sëñ Fallou moom sëñ sëñ Fallou bu Xaadir si mooy sama sëriñ mooy sa sëriñ waaw euh, kon da ngaa dégg liggéey bi rek wuy si ci waaw nag mm-hmm. nan nga gisee liggéey bi liggéey bi fa tabarakallah nag la liggéey bu nañ am waaw nag liggéeyal sëñ Tuubaa rek doy na lu ne waaw bëgg sëñ Tuubaa doy na lu ne mm-hmm. waaw euh, ay soixante-dix ans yow waaw Hmm. te yàgg naa ñëw ci liggéey bi. te yàgg ngaa ñëw ci liggéey bi yàgg naa ñëw ci liggéey bi dugg leen. waaw nag waaw nag. fu hmm? sëñ Tuubaa wootee daal kenn du la fa jiitu. la fa jiitu. Hmm. buy sama sago. kenn du ma fa jiitu. te <laughs> la ko wax maa la ko wax maa la wax loolu. xam nga tey moom moom leen. <laughs> mooy jur coow. waaye yaa ñu fa force <laughs> du am coow mukk يا إلى الله leen gërëm bu baax day itam da rafetlu liggéey bi bu baax ndax liggéey bi xam nañ ne liggéey pëstéef la te liggéey pas la nit nag soo lépp lu mooy def te àndale ci pëstéef loola su ko jàppee ni mu ko xëyee na la koy yendoo ba ngoon jot te pas-pas ba dara du ci soppeeku kon ñu wax ne da ngeen a jiital seen yéene ba noppi door jël jëf ji tekku ci nit nag yéene nag danaa de wax faral di wax sax loo xam ne dañuy dem ci biir ñu dem ko laajaat ndax nu ñuy mën a fayee yéene ba noppi bàyyi jëf may leen déedéet yéene kenn mënu ko fay bàyyi jëf ndax jëf ci boppam yéene moo ko lal. ital ñaan ci sëriñ Cheikh Mbacke mii nga xam ne mooy ibnu Serigne Salihu Mbacke ibnu Xaadimu Rasul ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi te wér lool ndax Serigne Cheikh day mën nañu wax ne bu Cheikh Salihu Mbacke génnaatoon jamono du sëgg. man lañ wax ni maam Xaadimu Rasuul bu génnaatoon jamono sëriñ Seex du sëgg ndax nag muy teg ci tànkam ci jàngale alquran jàngale xam-xam yare liggéey defe naa loolu njëriñ la ci réew mi waxuma la sax lislaam waxuma la taalibi waaye njëriñ la ci réew mi ci koom-koom ndax bu ñëpp maasee woon def ni moom day réew mi dina gën a jëm kanam kon sëñ Seex yàlla na yàlla na ko fi yàlla yàggal yàlla na ko yàlla wéral yàggal ko ci suñu kanam ñu ci gannaawam yàgg ko ànd ak moom ci liggéeyam Sëriñ Tuubaa fekkee naa fii ñu togg sombi Euh, taalibe yi jël sombi jël seen i pot tànk ci sombi bu mënuñ ko téye nga fekk ab dette a detti mbar xam lu ko jor jor di wax Saalum Saalum loolu koy wax ab dette mbar janj nga sotti ci sombi ba gars yi tiim ko foofa di ko di ko jëfandikoo loolu fekkee naa ko fii fii biñ fi ñëwee ba léegi ndawal ak ak ak ak ak li ñuy lekk daal mënuñ ko lekk suñu kër yi ceeb ndawal cere ndawal loolu lañ fiy dundee loolu nag mooy wane na sëñ Tuubaa moom kanam rek la jëm amul gannaaw jërëjëf sëñ Cheikh Saliou di nuyu baax suñu sang bu tedd ba Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Saliou yàlla na ko suñu borom yàggal te wéral ko te kàttanal ko ba naal yi mu naal ba ko liggéeyal maam ci tedd ja sama borom defal ko ci lu kawe njortam bu baax a baax euh, ndax moom de niñ ko mën a waxee daal day ndamal lislaam sagub diini bi la sagub lislaam la ak yàggam akuk wéram suñu njariñ la ñun taalibe yëpp ndax moom kat fa mu teg tànkam di ca dox bëgg a dimbali taalibe yi rek la. Mm, day wax wax joom solo nag te saa su ne ñun dañ koy baxeel mooy fa ma jëm ragaluma fa te ku ma topp ma dem ku ma toppun ma dem lu ma dogale ci yoon wi nag ñeme naa ko te ci jaar jàll. loolu nag doon na ndëgër laa ci képp koo xam ne nii yaakaar nga sëriñ bi te bëgg a jariñu sëriñ Mbacke de nit la koo xam ne ku ko topp na nga dem incha allahu rabbi yàlla na yàlla na fi yàgg te wér. lii nag moom dañoo bëgg dimbali rek ndax tool yi ku gis ni mu mel ñi ko bay defar ko ba mu toll fi buñ leen ko bàyyee mën nañ koo góobal seen bopp. kon nag bëgg dimbali taalibe yi rek rek moo tax mu woote ko waaye bu ko bàyyee dongo yi mënal nañ ko seen bopp bëgg ñoo xettali ñaaw téef yi ak yeneen yi may bañ a tudd ñëw fii ñaq wi ak loola mooy ànd ak génn bëgg ñoo dimbali rek la kon nag liñ ci fas te bëgg ko ci tool yi yàlla na ñu sëriñ bi defal lu kawe suñu njort. ndax cant moom du maa ne passé cant mu ñuy wax ne ci turu sëriñ Jili Lo mi nga xamante ne si ne moom lañ àndal euh, di wax ne ñu ngi delloo di sant yàlla bu baax. ndax euh, ni ko sëñ xaadim wax rek euh, mbir yi bu doxee ba egsi ba fii ñi ko doxal ba mu egsi ba fii mënoon nañ koo yeggale waaye sëriñ bi bëgg noo dimbali rek ndax euh, sëriñ Saliou daf noo mosoon wax nañu lu dul liggéeyal sëriñ tubaa liggéeyal sëriñ Touba moo ko gën ci yéen ba tax na it sëriñ bi loolu rek lay feddali ci ñun te it ñu gis ne ñun lu dul liggéey suñ Tuubaa daal liggéey Sëñ Tuubaa moo ko gën ci ñun kon daal ñu ngi ñaanal ñëpp di ñaanal Serigne Cheikh mu yàgg suñu kanam suñu boroom gëna guddal aw fanam gën koo wéral gën koo kàttanal bam àggale naali Serigne Saliou yi àggale naali boppam te ànd ko mboolem julli di mboolem taalibe yi di leen wax ne ñu ngi fii ci Touba Darou Salam mu Mouride di dëkk Cheikh Sëñ Cheikh Saliou di dëkk boo xam ne itam suñu borom da koo baaxee bambuk ndax ku ne xam na ne diggante sëriñ bi ak taalibe mi am fi muy sëñ Mor Xadis ak sëñ Malick Basine euh, di kër goo xam ne nii kër gu sëñ bi noote ci wàllu gépp nag rawatina sëñ Saliou mii nga xam ne mooy borom barab bii di Darou Salaam ndax Darou Salaam gii nga xam ne moom la tudd fii moom la tudde woon Darou Salaam ak sëñ Mor Xadis ah, ndax keroog bi nga xam ne sëñ Saliou dafa ñëw fekk sëñ Mor Xadis sañ ci Darou Salaam moo nekk ci ay mbaar euh, dafa ñëw sëñ Mor Xadis ne ko ah, kon nag dëkk bi mi ngi nii amagul tur sëñ Saliou tuddee ko Darou Salaam ko moom Cheikh kon loolu mooy dellusiwaat ci fii nii ci Darou Salaam Maodo Mouride sëñ bi tuddee ko Darou Salaam Touba kon loolu mel ni ne kon loolu yàgg la te sëñ moo Khary la tëdd tey bi mu fi jógee léegi mi ngi bëgg a yàgg 1942 ba léegi ku ne xam na ne kon dox boobu ak lu ko jiitoon lu yàgg-yàgg la ba tax na kon kër gi moom taxawaay bi ñu taxaw ci liggéey sëñ bi rek mooy dañuy feddaliwaat suñu laxasaay ñu ngi sant bu baax yi nag Cheikh Abdoulaye moom sëñ Modou mi nga xam ne moo ñu boole ci liggéey bi itam sëñ bi moom naka jekk suñu suñ suñ suñ mooy mooy borom kër gi mooy Cheikh sëñ Cheikh am waaye nag lii nga xam ne moom lañ ci am ñun kër gi nga xam ne ñëpp dañ koy béggee muy muy ñu ngóob mii nga xam ne saa yu ñëwee rek euh, sëñ Abdoulaye def ci pas-pas maanaam yëgal ko waa kër gi kilifa yëpp ànd ci ñu ngi koy bégee bu baax di ko ci sant bu baax di ko ñaanalit mu gudd fan loolu te ndax ñun Saalum gii sëñ Seex defal nañu loo xam ne néewaa na ku koy def ci am ab gox waxuma yim ñuy woo nii nga xam ne lëggéeyal sëñ Touba la nga xam ne ne lëggéeyal sëñ Touba amul lenn lu ko kawe waaye yoon wii mu ñu defal mu dem Touba nga xam ne nii dañoo jegeel yoon dañoo boole ci Touba léegi dañ daan def boo xëyaan fii ci réew mii bala ngaa dem Touba takkusaan ngay dem waaye léegi sax boo xëyee fii man ngaa ngaa ndékki ji Touba mm-hmm. loolu suñ suñ seex moo ko liggéey loolu ak cant la goo xam ne dafa feesoon sama xol lool ma fas yéene jottali ko mbooloo mépp ñu xam ne te mbooloo mépp ku ànd nag mboolem Saalum ñëpp ku cant ndax mbaggal gi mboolem Saalum gii ba Tamba ñëpp fii lañ aw yoon wi loolu dong doy na liggéey sëñ sëñ Cheikh bu ëllëgee yoon wii rek wallaahi doy na ko ab liggéey bu ko ci yàlla fayee loole doy na ko sëkk waxuma la liggéey yamay liggéeyaat li muy liggéey ci bindeef yeeg li muy jox doon waaye lii dong doy na ko tuyaa ba joo xam ne ni moom xaj na ci moom ak njaboot gépp wasirtu bi habdan xadiman bila xam لله رب العار زاغي صلاة بتسليمه للماء زمام وجل اليمن asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi sant yàlla julli ci yonente bi di santaat sëriñ Touba di ñaanal Serigne Cheikh Saliou suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko may ko sago ak ak tal ba mu yàggalee liggéey sëriñ Saliou bi yëpp. ñoo ngi sant sëriñ seex ci yenn juré ji nga xam ne moom la am ci taalibe Serigne Touba yëpp te nu ñuy kenn ci taalibe yooyu euh, yéen gi nga xam ne moom la am ci nun ba tax mu dinu liggéeyloo ndax yoonu murit moom li fiy jariñu muy liggéey euh, koo fi yéene da nga koy liggéeyloo ndax ku ñaq rek jariñu li ñuy def sunu bopp kon yéene ji am ci nun ba tax mu di ñu liggéeyloo noo ngi ko ci sant bu baax euh, di santit njaboot gi nga xam ne wuyu si nañ yëpp ndax bi ñu déggee wooteb sëriñ bi noonu nga ko waxee rek euh, fu ne la mbooloo jóge ci réew mi ñëw wuy si woote bi li ko tàmbalee ci njabootuk boppam gi ci gox yëpp wëllëre yi ak dëkkandoo yi ñépp ah, ñëpp la ñuy sant wax nag noo ngi beral sant dëkkandoo yi sëriñ bi nga xam ne ñoom la dëkkal fii ci gox bi eh, ñuy ay kilifa wala ay dëkk yoo xam ne seen seen dëkk leen boole ñii ay mbokki jullitam ñii ay mbokki taalibe rawate na nag ñi nga xam ne cër ya nga xam ne ñoom lañ yor ci sëriñ bi la bàyyi ko ñi nga xam ne seen seen maam sëñ Tuubaa leen defar tàmbale ko ci ñooñu ko tudd léegi ñu njabootug sëñ Mor sëñ Malick Bassine sëñ Ali Mbendloo ak seex yi fi nekk yëpp dañuy bañ guddal ci lim bi ndax day lu yaatoo yaatu waaye nag saxaar moom boo tuddee bopp ba rek mooy saxaar ga yóbbaale nga wagg yi yëpp kon buñ tuddee ñooñu ñi ci des ñëpp dugg nañ ci seen biir ñoom ñëpp maase nañ wuy si wuy si gu kawe njort woote bu ñu mës a woote nag wuy si nañ waaye biyee ci raw ndax baykat ku ne xam na ne bu nawet jotee ak jotam day néew lool amul ci wax ci nawet wenn waxtu wu waaye waxtu wii nu nag da ci raw